fait le constat <laughs> quand même beaucoup de joueurs euh, surtout euh, je sais pas ndax li Kajoor am tombé la moo waral ay gaaf mais beaucoup beaucoup de joueurs bu ñu demee bu ñu nekkee dans leur club uh-huh. mais il te plante beaucoup de buts. ah bu ñu ñëwee équipe nationale. bon mu nekk beneen affaire mu nekk beneen a poussière bi ak tàngoor est ce que c' une mauvaise utilisation. surtout au niveau de de l' attaque. de mm-hmm. des joueurs qui jouent en attaquant. Mm-hmm. comme attaquant de pointe. Mm-hmm. ça war nañ ko gëstuwaat. mais mais coach bi aussi am na ci rôle bu bon c' est c' est moi je le disais je l'ai dit quelque part euh, ci benn chaîne. qu'il a du mal quand même à à mettre en valeur. non les attaquants de pointe. Hmm. Aliou Cissé Aliou Cissé je le dis souvent. yàgg nga ko wax c'est son problème parce euh, que c'est son c'est son problème on a tout le temps eu de bons attaquants. ki mhm. yoo xam ne dañuy planter des buts dans leur club mais bu ñu ñëwee équipe nationale xam nga dañ leen ko Kajoor wax. <laughs> ou rek Aliou Cissé butéel yi la ñuy yëngal ba doo xam fan ngay taxaw. mais mais mais il faut maintenant euh, que ñu. liggéey bu am pour am un un un prototype d' attaquant de pointe. Mm-hmm. très euh, boo xam ne très solide boo xam ne dina mën a protéger le le Sénégal et c' est ça qui nous manque depuis depuis presque dix ans. Mm-hmm. gisoo benn attaquant sur les dix ans je l'ai dit ci ci ci fu ne. Mm-hmm. mu imposer wu en équipe nationale. je je way jox ay statistiques. Euh, le gosse Diouf la Mame Biram moom -hmm. avant Aliou Cissé ak. ci la dugal neuf bi. mais tout le reste amul kenn ku ci dugal euh, cinq bi six bi. alors et ça c'est un problème.